ànd nekk benn ndax na ko sëñ Tuubaa bëggee woon na ko mag ñu baax ñi bëggee woon waa Lambaye ña ña ngi ca yoon wax dëkk boo dugg am na daayira ñi ngi jàng alxuraan am nay daara ñi ngi jàng alxuraan di jàng xasida waaye nag dafa am lu gën a am solo mooy ñun ñëpp ñu ànd nekk benn ndax mooy tax liñ bëgg ci Lambaye dëgg-dëgg ñu mën koo am kon loolu moo waral fédération bii di Safinatoul Amaan boo xoolee bis yu baree bari dëkk yu mag yi murid yëpp ñu ngi koy am waaye boo seetloo day mel ni làmbaay bis yu bëree bëri mënagu koo am muy bis international boo xam ne bisub xasida lay doon tund làmbaay gépp bokk ko loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax daara ji jóg ak it bisub boo xam ne dañ koy ziar xalifa général des mourides boo xam ne tund bawal gépp lay doon ñu dem ci seex Mouhamadul Muntaxa wala képp ku fi nekk seexul xaddim taxaw ci kanamam ñu xam ne lii mooy mbooloom waa tund bawal tund làmbaay loolu bokk na ci liggéey bi nga xam ne ni daara ji bëgg na ko fas ko yéene ànd ak waa daayira Matlabul Sifaahi bu tubaa Ndioum fas ko yéene ànd it ak suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci pàkk bi di mboolem bawol bawol yëpp bu loolu weesoo it daara ji liñ gën a bëgg mooy siège boo xam ne dañ ko bëgg a tabax ca làmbaay muy daara fédération Safinatoul Amane comme ni ko dëkk yëpp amee comme ni ko Hizbut Tarqiyyah amee ni ko Mafatul Bisri amee dëkk yëpp ni ni mu ko amee ci dëkk yëpp noonu lañ ko bëgg ame amee ca làmbaay amee ko ci dëkk yu mag yi nga xam ne ñoo nekk euh, euh, réew mi yëpp bi nga xam ne moo ci jiitu nag mooy biir làmbaay ndax foofu moom mooy capital bi mooy capitalu Bawol daara ji bëgg na faa tabax daara joo xam ne daara si fenatu amaan lay doon du ñu tuddee kër sëñ Touba ndax na fa ba noppi te mënuñ faa def ñaari kër sëñ Touba waaye ñu am fa daara joo xam ne daara si fenatu amaan lay doon boo xam ne tund Bawol gépp ñoo ko bokk lépp lu ñu taxawal di ko fa def kon loolu ñu ci tàllal loxo nag bu baax a baax waa fédération waa daayira Matlaboul Chifahi bu bu tubaa njuum di ci tàllal loxo yi suñ mbokk yi nekk ci pàkk bi di waa pàkk buum nga xam ne ñu ñëpp benn lañ bokk na ci njëriñ yi nga xam ne nii daara ji mu ngi koy feeñal mooy ñun ñii ñëpp ñoo bokk ay maam di ay mbokki neen bokk nekk ci dëkk bi fédération bi bi mu commencé depuis daaw ba ren bari na ci ñoo xam ne ci lañ xamante te buñ bi ñu xoolante seen biir ay mbokk yu jegeñee lañ mu di lépp di ay njëriñ te dox mbokk nag am solo lool ci lislaam am wàccuwaay bu mag a mag ci lislaam dëkk bi xat na euh, jóg dem ci kenn yombul waaye lii bokk na ci jumtukaay bi nga xam ne nii bu am solo la ngir ñuy mën a xamante ci suñ biir di mën a dimbalante ci suñu biir lépp loo xam ne nii nit a nga koy yëngu nit a koy yëngu yow nga soxla ko muy sa mbokk taalibe di sa mbokk deret nekk ci biir fédération bi ci moom nga koy lijjantee loolu it njariñ la loo xam ne nii dimbalante la te lislaam nag wax dëgg yàlla dimbalante da caa am solo rawatina nag yoru murit kon ñoo ngi tàllal loxo bu baax a baax waa daahira Matlabul Sifaahi di leen xamal ne seen doom jii di sëñ Fallou njaay mu ngi ci liggéey bi di ci jàmbaar lool xam nañ nag ñu mel ni moom a ci biir ñoom ñu ko gën a am pëstef ñu ngi ci biir njuum kon dañuy tàllal loxo ñëpp fédération bi ñëpp la soxla ñëpp la soxla borom alal borom xel borom doole ñëpp lañ soxla ndax mbooloo yi moom bàyyiwut kenn kon loolu moo waral daara ji jóg tey seet si leen ziyaare si leen ngir xamal leen suñu liggéey xamal leen suñu mbébét ci biir Bawol ñu ngi leen di tàllal loxo bu baax a baax liggéey bi nag ni ñu ciy tàbbee weesuwul nen rek la carte bi nga xam ne mooy wane ne bokk nga ci liggéey bi da koy wecceeku ñu koy weccee 1000 francs carte bi nag am na ay sart boo koy jënd dina la woon sart yëpp mu ci biir carte bi mooy maanaam booy dugg ci liggéey bi faaw nga am carte bi jënd ko 1000 francs bi ci dolli ko mooy liggéey bi saa suñ ko wootee boo nekk ci da ngay teew bi ci dolli ko mooy su weer dee téeméeri dërëm lañ lay laaj ngi la jëm ci biir kees gi beneen bi ci topp mooy réunion boo xam ne ni daara ji woote na ko boo ko mënee da nga koy ñëw fekke si bi ci topp te ëpp solo nag mooy maanaam lépp loo xam ne nii daara ji su mëna ko muy ay projet lu ñuy def moo xam ziyaar la moo xam bisub xasida la moo xam kër gu ñu tabax la dañ ciy participer li nga xam ne moom lañ sas mbooleem taalibe yi yëpp loolu mooy sarti carte de membre bi carte bi nag mën nañ ne ñëpp mën nañ koo am ndax ki nga xam ne dafa yor liggéeyu jàmbur wala ki nekk ci pàkk wala ku nekk ci palaasu jàmbur nu mën a demee rek boo amee carte bi am na jumtukaay boo xam ne nii bu buñ ci jaaree ak yow di nga mën a bokk ci daara ji te mën naa am sax du bari bu la la ko soog jot mayut teewaay bi nag lañ gën a bëgg waaye su fekkee ne fi nga nekk ñàkk nga jot te bëgg ngaa tàbbi ci liggéey bi ci doomu bawal mën ngaa wecc ku carte bi dinañ fexe bay jokkoo ak yow noo xam ne saa su weer dee sa àddiya dina ñëw bu ñu amee liggéey boo xam ne dañ koy def tamit sa àddiya dina ñëw saa soo amee jot di ñëw ci mbooloo mi di ak ñoom kon carte bi bàyyiwut kenn képp koo xam ne nii doomi bawal nga doomi làmbaay nga yaakaar Serigne Touba ñu ngi lay boo ñi ngi lay woo ci liggéey bi di la ci loxo bu baax a baax kon nag xam naa dañuy wàcce suñu kàddu foofu di jox suñu mbokkum taalibe sëriñ maam Thierno Kase mu soññu mbokk taalibe yi ni ñu ko baaxoo defee dañuy def saa suñ liggéeyee ba tollu fii ñu jox kenn ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ne ci biir daara ji mu soññu mbokk taalibe yi ci seen diine suñ paree ñu wëyal